Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy dellu si di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gannaaw boo xamee ne doomu moolaana cheikhul islam haaj ibrahim di eh, soxna barakatu ñees doon sëy ca Mauritanie moo génn àdduna ñu war ko rob ëllëg ca fa nga xam ne mooy tumbu yaali fa mu doon sëy ñu ngi koy tàggee mbokk yeeg sopp di ñaan ñëpp ñaanal ko yàlla yàlla xare ko aljanna dajale ko ak way juróom ak Cheikh na Ahmad Tidiane ak yonent bi ñuy tàgg itam suñ doom doomu oustaz Baba ñaŋ biñ gënoon a xam ci wol fajiri te mooy adjoint porte parole bu Medina Baye doomu suñ bàjjeen yetta baay ñes mu baay doomu Baba Niang boobu oustaz Babacar Niang bu mu tuddee woon Sidi Lamine moo génn àdduna ci accident bu métti euh, war euh, Jakarta benn kaar fël ko ba pare daw ña ca kaar ba ñëpp kenn sa xel dajut dara lu mooy nuñ fexe àgg rek ci seen tukki loolu nag di lu raglu euh, nga xam ne kenn ci ñoom rek waroon naa wàcc. oo daal dem police xool numéro bi déclaré ko waaye xale ba fa la daanu timis daanaka ba minuit di naaj fekk mu amee woon jabet dañ yóbbu ko hôpital yàlla dogal lim dogal ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi ñaan yàlla yàlla yoonu ci musiba te yàlla yërëm leen yal na yàlla xare leen aljana